Sénégal maa ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax a baax tey reportage bi ñu leen di defal tey mi ngi jëm si équipe nationale ñu laajal leen tey xool dugg ci marché bi xool ndax mayo yi mi ngi dox nam daan doxe ndax gars yi nañ ko daan jëndee nañ ko daan respecté ñu ngi koy defee noonu ndax gis nañ. 2002 gars yi foo tourné verte zone ruus bi di la bëgg rey ci dëkk bi ndax looloo ngi am ba tey dinañ ci am lu ñu leer léegi léegi suñ jugee ca ña koy defar wala ña koy jaay léegi léegi sama camé kama caméraman ah <laughs> oh, tey femme laa am sama xol bi sedd na guyu Khadija ziar naa la moo nekk tey moo may cadré nii mu rafet waaye sama réalisateur Lamine la ngeen ci ànd ak dëgër musóor ca dëgër jala Khadija topp ma ma dugg maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay waaw. yow nga nekk marché bees di defar ay mayo euh, ak yeneen i bagage waaye nag tey mayo yi ñoo ñu itteel ndax euh, mayo yi ñu ngi dox. moyens yi moyens yi mi ngi dox waaye gënoon na dox. parce que bu njëkk comme joueurs yi nuñ ko démarré seen seen seen seen seen seen pool yi moo tax xëy na am xaw na xaw a xaw na am sooxe tuuti mais actuellement nii comme nit ñaa ngi gën a dund bi mi ngi xaw a tane quoi mi ngi xaw a tane Euh, yow lan nga xalaat ne moo waral mu dem ba heure bi doog a tane. waaw ci joueurs yi ñoo xam ne xëy na ñoo xëy na wàññiwun résultat boo xam te ne convaincre na gay kii yi quoi comme comme supporters yi xam naa loolu moo tax euh, parce que comme début bi ni ñu doon sooxee ni am ay match nul dem ba ci dernière minute ñi ngi door a am penalty yi dugal ko xam ne yooyu ñoo xaw a jàpp nit ñi ba mu affaire yi xaw a xaw a xaw am faay tuuti quoi. mais actuellement ni ma xaw na tane quoi moom sincèrement xaw na tane. ñu gis na na gars yi maillot 2002 yi la ñu jëlaat tànk yow mi koy defar moom lañ jëlaat indiwaat ko yow lan nga gisee loolu. waaw mooy comme gars yi dañoo comme comme xam xay na rendre hommage Bouba Diop bi si la bokk loolu di si joué na si quoi joué na si waaye moom la ñu indiwaat daal moom laa gisaat si marché bi xëy na nag xaw na seer tuuti nag xaw na seer tuuti waaw mais man moom damay gars yi jëm jënd ñëw ma ma floqué leen. mais yow say mayo cher na wala seeru ndax nee nga xaw na cher yële ñoo cher mais yow comme li nga koy defaree ak euh, bu njëkk li ñu ko doon jëndee lan moo gën a yomb. waaw actuellement nii la gën a cher parce que actuellement nii rek man sax bi may jëmee jënd maa ngi jëndee 8000 xam nga 8000 moom ku ci koy jaayaat xaw na cher. léegi euh, bu rekkee nag am na ñoo xam te dañuy dem ci téer comme comme genre bi dañuy dem ci téer téer moo ñu koy ñawal ñu ñëw tamponné di ko jaayaat comme bii nii waaw téer moo ñu koy ñawal ñëw tamponné di ko jaayaat am na yenn yu nekk fee ci noonu lay demee quoi. ñu ngi lay jaajëfal. ok incha allah. sëñ bi nuyu naa la. soxna si maa ngi lay fay. ay ah, yow da ngaa teel a supporté sax marché bi nekk suba nga supporté ko tey. waaw ah, gis nga kontaan suñu gaynde rek. am ci ñoom yaakaar bu baax a baax a baax looloo tax may supporté. maa xaaroo ba ñu commencé gagné nga doog ko solo ay maillot di supporté di bandi bandi. non non man toujours douzième gaynde laay nekk toujours. waaw man moom noonu laay dundee. waaw mais damaa gën a kontaan ci ñoom nag moo tax. loolu dong nga tax. merci <laughs> ñoo lay fay. yaw yaa ngi jaay maye. maye Sénégal. ñoo ngi jaay maye waaw. Ah. waaye gisuñu fi ay maye de. ah mais nu mu waree woon dox comme Coupe d'Afrique bi passé doxee wu. Ah, moo tax ah, moo tax da ngay xaar ba kañ nga doog a jël. peut-être ñu xaar bu final rek ñoo ngi jaay benn par benn mais daaw moo ëppoon Coupe d'Afrique daaw moo ëpp li ñu jaayoon ay maillot. daal final bi ngay xaar pour que. xam nga nu ñu doxalee début bi poul yi moo tax gars yi amu ci woon amu amu ci woon confiance quoi ci équipe bi mais par la suite ñoo ngi gën a dem peut-être fii ak final bi allah may bi dina gën a mën a dox. ma lay fay. yow da ngay jaay mayo Sénégal Fejoor boutique ah. waaw mayo ñu ngi dox. bon mi ngi dox parce que fan yii foog mu dox mayo Sénégal magi dox carrément. mais nag dañuy gën a am ay prix yu yu am na yu cher am na yu yomb am na yu gën a cher mais nag dafa mel ni bu 2002 bu la gars yi gën a bëgg quoi instant bi. ok loolu lañ gis dañu gis gars yi dañoo indiwaat maillot 2002 yi lan léegi lan nga gisee jàmbar jàngan nga am ci loolu. bo xam naa xam nga 2002 football bi dafa dafa yéeg ci kaw footballu Sénégal parce que 2002 la yeew carrément ni ko bëggoon 2002 moom la ñu yëg boobu lañu amaat moo tax ñu andiwaat maillot bi. parce que dañu xëy rek gis ko ci marché bi ñëpp moom lañ bëgg aussi vraiment moo gën a dox moo gën a cher aussi mooy gën a manqué instant bi ba tey njaay mi bokkul ak gis nañ ne bokkul ak dem da ndax bu njëkk dañ doon gis fii yëpp gars yi di wekk seen place yi mayo mais gisuñu yow nga wekk de. carrément nga wekk boog bari li ma wekk bariwul maa ngi teg ni mayo yi xam nga teg ko nii rek jël échantillon yi teg nii moo gën parce que mayo yi kenn mënu ci am lu bëri bëri dafa xaw a cher tuuti. waaw mais xëy na si kanam mu gën a ci boo mooy sax day gën a yokk parce que loolu li ñaan tamit parce que match bu ne day gën a yokk waaw kon bu demee final jël ko bi mu gën a yokk aussi waaw kenn mënu ci am lu bëri. <laughs> ñu ngi lay jaajëfal. waa gis ngeen nee na 2002 yi moo gën a dox gis nañ aussi tamit maillot 2002 fu ñu jaar rek ñu ne loolu la ñuy jaay moom la gars yi indiwaat par rapport ak maillot yi nga xamante ne ni moom la ñuy fubalee ci période bi comme nag 2002. def leen la 2002 defoon rek comme waa 2002 indiwaat nañ 2002 fexe leen ba def la 2002 defoon te raw leen nag <laughs> waaw ndax gars yi nañ coupe bi lañ soxla waaw dégg nga loolu coupe lañ bëgg kon nag ñu daal di nekk ci Pejoor kay sañse tey nag moom su ma neexee dédicacé ko ba mu neex ma ndax daf ma may mayo solal ma nag waaw moom may may mayo Sénégal bi kon suba su ma neexee ma sañse ko taxaw fu ma neex jaajëfal naa ko muy am di Pape di leen jaajëfal bu baax a baax naan leen nag ñu ngi leen di joxaat beneen reportage ak ci leneen ñu ngeen ko bëggee ak leneen lu xew dëgër lay doon caba mi am jom